Ousmane Sonko. c' est valable pour Ousmane Sonko Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko dañu koy ñaan yàlla yàlla génne ko fi mu nekk yàlla dëgëral ko. Mhm. yàlla sàmm njabootam. parce que ñu ñëpp ay mbokk lañu benn lañu te kenn du yéene sa noon sax kaso. ak sama mhm. koo xam ne ay allié ngeen ay partenaire ay sénégalais ngeen yéen a bokk réew. Mhm. donc lu may ñaanal lu may ñaanal les maires là Ousmane Sonko c' est un maire. les maires les maires de Ziguinchor c'est vrai. même chose mënul daw du génn dëkk bi fu mu jëm. Mhm. buñ ko soxlaa wóolu ko mu ñëw.